bismillahi rahmaani rahim man maa ngi tudd Alassane Fall juddoo Pikine yaroo Thiaroye bon li ma li ma jaar ci sama jaar-jaar bëri na lépp lu bon def naa ko ci man du ma weddi yàlla lépp lu bon def naa ko dama jël naa drogue tox naa na naa sàngara def naa jël naa cocaïne jël naa héroïne use naa drogue fóon naa drogue tuuti naa lépp lu bon lépp ko doon jël Médina bu ñuy wax Rue cinq foofu laa daan jëlee drogue Rue 5 boobu boobu boru ko ñoom Youssou Ndour ak ñoom Maalum ñoom ñun ñëpp xam nañ ma ñoom Youssou Ndour koñam Youssou Ndour xam na ma rakam am na benn rakam boo nekk Allemagne moom ñoo ñoo doon ànd foofu laa doon jëlee héroïne ak cocaïne di jamu di jamu di fóon di fóon cocaïne di jox héroïne mais loolu yëpp pour ñoom dañ ma jëloon pour sànq ma parce que yàlla nag moom mooy defar doomu aadama ginnaaw doomu aadama bi jaar jaar ju nekk yàlla dama moo ko teg ci doomu jaar jaar nit dañ ne yàlla bu la tegee jaar jaar da koy nangu parce que jaar jaar bu nekk jaar naa ci si àdduna coobare bu nekk façon coono bu nekk daj na woo sama yaram. sama tànk bi waaw sama tànk bi mi ngi daggee Kër Mbay faal boobu accident oto la boobu dama jógee fi ma ne damay dem Touba ba ma ne damay Touba ma ñëw ba Kër Mbay Fall fu ñuy wax Kër Mbay Fall ba Kër Mbay Fall. oto daan may mbëkk bi ma oto bi mbëkkee ma ba maa ngi yore si njëllu Serigne Saliou mais ci baaxu Serigne Saliou oto bi ma mbëkkee kanam ma féetee sama tànku càmmoñ bi ci la daggee la ma dagg sapeur pompier ñu ne ma tëddal ba ma tëddee aw ma leen lu ma def ma laa leen ma laaj leen ndox ñu jox ma ndox ma naan ndoxu bidon yu Evian yu ndaw yi ñu def si loolu ñuy mucc ba ma ko jëlee ma naan ko ñu ne ma léegi sa tànk yi juróomi baaraam yi càmmoñ yi dagg na bañ ma ko waxee man ma daal di xam ne juróomi baaraamu càmmoñ yi dagg na après ci laa la waxee ne kon ma dëkk parce que kër gi ma dëkk ak koñ bi ma dëkk yëpp koñ quartier dëmm la. lox bi may lox lox bi boo gisee may lox du café du dara dëmm yi ma topp. non non drogue bi parce bi bi demee bi jël drogue bi dañoo am benn centre boo xam ne centre la ñuy wax bu américain yi foofu la seetee drogue bi di seet drogue bi. ñu dem ñu seet drogue bi ñu bu ñu xoolee drogue bi ñu xam ne drogue bi jëlum drogue bi nekkul sama yaram drogue bi ñu xam ne nekkul sama yaram ñu jël ko ñu xool ma ñu ne ma drogue nekkul sa yaram ñu daan may passé bi di def seen yëpp te toxico seet pour des toxico moom moom la ñuy wax en ci tubaab toxico. mais sa loxo bi dafa damm. sama mi ngi dammee kër sëñ Afia bu sëñ fàllu mais boobu dama demoon doon doon fa tox ay drogue mais comme Touba la dammee. mënu ma wax ndigal li Touba bi ñu ma laajee Touba sa loxo bi dafa damm dama neen dama daanu ci biis dama tarxi ci biis mais bi ma ñëwee ba dakaar mën naa ko wax fii leeral ko pour waa Dakar yëpp Sénégal àdduna bi yëpp yëg ma. waaw Macky Sall Macky Sall yàlla moom yàlla ak Serigne Cheikh mu Serigne Saliou moom moom boolee Macky Sall Macky Sall du man maa ko fal parce que man taalibe rek laa taalibe day way si ndigal ndigal gi nag ci Serigne Cheikh mu Serigne Saliou ci la jógee. parce que Macky Sall ba muy ñëw di woote élection yi dafa ñëw ci sëñ Cheikh mu seen Saliou moom la ñëw moom rek la recevoir ba mu ko recevoir mu fekk ma ci xayga ba ma fekkee ci xayga mu nuyu ma ba mu ma nuyoo loxo la ma jox joxuma dërëm addiya yi mu doon joxe ndongo daara yi yéen ñi fa nekk nga xam ne si ndongo daara yi lañ doon mbubboo nekk wuñ fa dara lu dul xaalis ñooñu la jox xaalis mais man Macky Sall amoo benn moment moom benn yoon la ñu gisee. léegi léegi lan nga nga xamante ne waaw xale yi nga xam ne ñoom dañoo jóg ci dorog dama leen di xamal ne dorog day sànq doomu aadama te sànqte bi yàlla moom moo lay mën a dimbali kon nag dama koy ñaax àdduna bi yëpp képp kuy jël drop wala ngay tox cocaïne wala ngay tox cocaïne wala ngay tox yamba wala ngay jël ay ay doom doom ak yamba ak cocaïne ak héroïne bi mu amee Dakar yàggul. ay quatre vingt quatre vingt et un la la dugg Sénégal te loolu tubaab yi ñoo ko fi dugal loolu pour yàq doomu aadama yi la te nit ku ñuul nag liñ ko xamal nit ku ñuul sénégalais da nga war ci ndigal gu baax ndigal gi yàlla wàccee mooy ñu julli di woor weeru koor di def lu baax ci def lu baax nag ma ñaan autorité yi ñu dimbali waaw ku ma mën a dimbali comme ni may def nii léegi autorité yi man ki ma mën a gublu moom mooy njiitu réew mi njiitu réew mi moom laa amal affaire parce que ku nekk ak ki la war a dimbali aw ma benn autorité taxuma kenn taxuma gàllaaj julli lu dul julli waxtu yu juróom moom laa am si gàllaaj ginnaaw yàlla ak yonent bi nag njiitu réew mi moom mooy sama moom mooy sama moom mooy sama comme maa ngi fi dakaar moom laa am ku may gestu